ñun nii euh, Mama Niang. Mama Moussa musaa Moussa Niang bu RTS relaté naa ko sax ba ko euh, saoudien yi nangoo caméra tëj ko ñun on est allé le voir mais nanguñu sax faale. Boubacar Sarr moom moom du du kii mais. du du non non defal naa defal naa waaw pour ne pas taxaw. non non non man. Mm. accessibilité am fii. waaw yow fii mais. non non mais nga fële. dafa am Sénégalais ngi seetaan non dafa am mm. procédure parce que man. mom mm. musuma ko gis. mu gis bi ma ko gisee moy bi may dem fi inscription. ci hangar pële biñ ko fa nommé sax limu ko njëkk wax avant texto yi dama neko ko. mu ne ma équipe yi ma fi fekk buñ la nomé yow kasse lañuy nomé mais équipe yi yow do am maîtrise pour changer ko wala mais mom moom vraiment. après ci ouverture mais dama gis ñoom mm. ñoo les saoudiens relation yi ñu amoon ak moom procédure yi daan yàgg mm. yàgg gi mu yàgg nekk mm. consul foofu maîtriser affaire bi moo tax ñu ne bi ñu ñëwee problème yi ñu daan am yëpp ci bu ñu ah, yegg moom ma moom ci biir waaw mais ñun ñii ma man man waa xam nga ko moom man man du sama première fois mm-hmm. xam nga du c'est pas ma première fois te même bu dee Eh, ah, jamono yi nga xam ne demal ma sama bopp sa yàgg naa yóbbu ay nit fële mais moom dëgg-dëgg c'est pas honnêtement euh, ñu bëri nga regretté mais Doudou ñëw ci Lat Diop bi bala ñoo avancé ci ci yéen mm, lu gàtt lay doon mm-hmm. partie financier bi ngeen di jël di ko tagg nii man wóoluwuma leen mm-hmm. rawatina nag seen ñu leen def ki ñu xam waaw wax rek wax ku ma xam wax ngeen ma pare may leen ñu man man man de crédit à personne avant may gis li ngay def. waaw ah, loolu ko. dégg nga waaw ah, seen procureur boobu laa gën a ñàkk wóolu. waaw ah ndax procureur boobu warul toog ñaari fan fii ambassade toog kër gi. waaw si ñëw mooy. vrai financier la ñu si ñëw. Mm-hmm. parce que dafa jël Lat Diop. Mm-hmm. convoqué ko sur la base d'une dénonciation. Mm-hmm. de corruption. Abass Fall loolu lañ ko def. waaw ah, loolu ñu waxuma moo def waxuma defu. Hmm. mais daf ko war a léegi Lat Diop nag dama koy dama koy ñeemantal tey. Hmm. ndax ko nekk ci semaine de deuil. dëgg la ndax bu góor dafa génn àdduna. Hmm. ma toog benn jour man moom ak Badara Gaje ñuy waxtaan dañu évoqué yaay day doon wax keroog lu muy dëgër yëpp yeggaliwu pour pour xew kon su dee dafa évoqué yaayam mu mu ko yeggali tuur xewal te boobu moom nee na lépp moo ko assisté nee na poste poste yu Macky Sall yu bëri rejeté na ko parce que dafa waroon nekk

souvent nañu humaniser les rapports. surtout surtout. Mhm. xam nga xam nga mhm. koo dem jëli. Mhm. jugé goo il est présumé innocent. présomption d'innocence boobu mu am. lii daw dans un pays normal nga xam ni dara politique. qui il a des, il a, il a, il a des garanties de représentation. Euh, sénégalais bi war a roy ci système français mais hmm. gis en France da ngay dégg benn mot hmm. mise en examen hmm. il est mis en examen dañ lay bàyyi euh, liberté de mouvements, avec certaines restrictions voilà c'est-à-dire que la détention est l'exception mm-hmm. la liberté est la règle mm-hmm. bien sûr kon nag ñun suñu suñu code pénal ak suñu code de procédure mm-hmm. pénale dañu war a évoluer ci loolu évoluer en sorte que la mise en examen soit systématique nit ki da nga koy bàyyi mu dem doxi soxlaam avec boo ko soxlaa nga woo ko ba keroog ngeen koy euh, ngeen am des preuves condamné définitivement mu dem tëdd kaso mais dégg non américain bi ko sax ndax mën na leen fay arrangement sax arrangement sax waaw xam nga xam nga kon euh, li may wax nii bi ma koy wax commencé wu ma ko tey dama mos a wax nii ñun suñu garde à vue yi mm. c'est des formes d'humiliation mm. dama maa ngi ko doon wax. depuis waaw depuis temps Macky Sall. Mm-hmm. maa koy waxaat tey te yàlla ma yàlla may ma koy waxaat suba. Mm-hmm. on nos avec les Sénégalais. Mm-hmm. parce que tey jii. li ma li ma jàpp ah. mooy jéegi jóg waru fanaan démb. wallaay wallaay wallaay. sëyul daam mm-hmm. respectable mm-hmm. da nga koy da nga koy ne ñibbil sa kër mm-hmm. dana no dana nga dellu si surtout que bee convoqué woon nañ ko ne ko dans une semaine ah. di nga dellu si te dellu si daal xool euh, ne waaw ñun les frontières là sont tellement poreuses yooyu bu amoon lu muy daw du jaar fii dem yoonu ñun fii ñu nekk en plein Covid ñu ñu dem Guinée di ñëw ah, fan lañ doon jaar donc euh, loolu rek laa amoon lu may wax ci minute lan mhm. ci léegi nag pour ñu euh, dugg gën a dugg ci kii bi ñu mhm. ñu euh, nuyu bu baax sunu sista Dieng Diop mi nga xam ne jamono yi nii waaw yàlla ko yàlla jàppale waaw yàlla ko